لك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك اللهم قرة عين لا تنقض asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki téléspectateur LCS la chaîne sénégalaise dellusiwaat nañ ak yéen ci seen émission bu mag bi lee muy yeete ñu nuyu leen ziyaare leen balu leen xaq bal leen xaq ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yal nañu dollee sa mbërtal ci géeju yërmandeem yi dollee ñoo yiir mbalaanu suturaam yi bi xormati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallahu mu mel na euh, ñu war a dellusiwaat rek ci sunu njàng fa tabaarakallahu ndaxte yeete mooy rek euh, jàngal nit ki fa tabaarakallahu yee ko ci li nga xamante ne nii doon na ci nelaw yaakaar naa bu ci yeewoo xam léegi li nga xam ne moo jaadu loolu dafay am solo mu mel na rek li ñu war a jàng tey dafa jëm ci wàllu jigéen ñi waaw dafa jëm ci wàllu jigéen ñi ndax euh, yàlla daf ko def mu bokk ñoom ci seen dund mënuñu ci dara ala xaal te mooy li ñuy tuddee xayd muy wàllu gis baax ngeen baal ñu muy jigéen ju gis réglam waaw daf ci am lënt bu ci xaw am tuuti bu dal benn jigéen tax ñu ne kon il faut ñu ñëw indi ci leeral su ko defee ñoom ñu mën cee xam bu baax a baax a baax li nga xam ni moo ci aju waaw ndax leen lu nekk rek xam ko moo gën réere ko su ko defee euh, dafa am jigéen ju fuqaha yu tuddee mubtada atun waaw mubtada atun mooy jigéen ji soog a tàmbalee gis baax nga xam ni xale la woon yàlla def na mu ngi dem di màgg di màgg ba première indisposé kooku lañ tuddee mubtada atun moom mooy soog a tàmbali kooka nag moom mi soog a tàmbali la sharia wax ni mën naa ànd ak deret ji ba mu am ak moom jours gis nga ba mu am ak moom quinze jours moom mubtada bi ki nga xam ni moom dafay soog a tàmbalee gis baax kebe mën naa dem ak moom quinze jours fukki fan ak juróom waaw su amee ak moom fukki fan ak juróom su areetee baax na na sangu farata te julli waa léegi bu dépassé quinze jours yi nag moom kii soog a tàmbalee gis baax kooka lañ koy sant itam mooy na sangu te julli bu daje woon ak weeru koor na woor bu daje woon ak borom këram soxla ko na ko jox boppam te dem hôpital vérifier ji wér-gu-yaramam parce que règle normalement warul dépasser quinze jours muy fukki fan ak juróom waaw kii mooy mubtada atun jigéen ji soog a tàmbalee gis baax moom mën naa dem ak moom ba mu am quinze jours fukki fan ak juróom mën naa arrêté itam avant muy mat 15 jours su boobaa bu arreté na sangu farata julli tabaarakallahu waa léegi bu fekkente ni itam léegi ngeen baal ñu deret ji day ñëw ak arrêté ka dem maanaam mën na koo gis ñaari fan ñetteelu fan ba deret ja arrêté quatrième jour ba mu ñëwaat su boobaa moom fan yi nga xamante ne nii deret ji du ñëw du ko limaale ci quinze jours yi bokku ci waaw na calculer rek fan yi nga xamante ne nii ci la ko deret ji dikkal fan yooyu rek lay wàññi fan yooyu nag mën naa dem ak moom ba mu am fukki fan ak juróom waaye waru koo dépassé su ko dépassé rek réglam normalatul na sangute julli dem hôpital ñu seet ko dégg nga ñaareel bi moom lañ tuddee mu'tadatun kebe mu'taadatun mooy jigéen ji nga xam ne moom nag moom aaday am na aaday gis réglam am na aaday gis baax gis na ko gisati ko gisati ko kooku nag liñ koy wax mooy na dépendre ci aadaam kooku dañ la wax ni aadatuha aadatuha na dépendre moom rek ci aadaam dégg nga maanaam moom jigéen ji nemmeeku na ci boppam ni six jours la daan gis baaxam gën jaa bari kon na dépendre ci six jour am yooyu saa yu amatee six jours mu jàpp ne léegi euh, baaxam jeex na dafay sangu commencé julli commencé wor bu dajeeg weeru koor bu ko borom këram soxlaa na ànd ak moom kooku moom mu'taadatun ki nga xamante ne nii moom aada woon na koo gis gis na ko gisati ko gisati ko kooku kenn du ko wax quinze jours mais dañ koy bàyyi ci aadaam muy fan yi nga xamante ne ni moom la ko baaxoo di gis léegi su fekkee dem na léegi ba dépassé aadaam par exemple six jours la ko daan gis léegi six jours yi mat na mu continuer di ko gis kooku dañ koy may trois jours trois jours lañ koy may moom moxtaada bi muy ñetti fan waaw bàyyil xel ci li ma laa bëgg jàngal ki nga xamante ne nii am na aaday gis baaxam gis na ko gisati ko gisati ko kooka dañ koy bàyyi mu dépendre ci aadaam muy jour yim ko baaxoo di gis léegi nag jour ya mat na par exemple six jours la daan gis baaxam six jours yi mat na septième jour ba wala huitième jour ba mu continuer di ko gis kooka dañ koy may trois jours mu yokk ko ci bu yokkee trois jours yi bu arrêté ak bu arrêté wul yépp day sangu julli bu jeg weeru koor day woor bu ko boroom këram soxlaa day ànd ak moom trois jours lañ koy may mu dolli ko ci six jours yi nga xam ne moo nekkoon aadaam dégg waaw kebe bu fekkoon léegi nag moom ndaw si aadaam douze jours la woon maanaam fukki fan ak ñaar mooy aaday ndaw si moom lay gis baaxam dégg nga ba tey dañ koy may trois jours yi ndax euh, qaayida bi maanaam ci tënk mooy ne baax bi warul dépasser quinze jours yi kon ndaw si nga xamante ne nii moom aadaam fukki fan la ak ñaar kooku ba tey bu ko dépassé mën nañ koo may ñetti fan yi parce que fukki fan ak ñaar boo ci yokkee ñetti fan yi dafay nekk fukki fan ak juróom foofu la limitu règle yem mais bu fekkoon ndaw si aadaam fukki fan la ak ñett kon kenn du ko may ñetti fan parce que kon dafay dépasser limite bi kon ñaari fan lañ koy may moom ndaw si ñaari fan lañ koy may mu teg ko ci aadaam fukki fan yi ak ñett mu nekk quinze jours bu arrêté bu arrêté wul yépp day sangu julli waaw kon li ma bëgg wax mooy mu ataada ki nga xamante ne nii moom aada woo naa gis baaxam kooka sharia daf koy bàyyi mu dépendre aadatuha ci aadaam fan yi nga xamante ne nii rek moom la baaxoo di gis baaxam fan yooyu la ko sharia ay bàyyeel su fan ya jeexee mu continuer nag di ko gis sharia daf koy may mu yokk ci trois jours parce que ndaw si daf ma ni dafa dégg ustaas bu waxtaan ne boo setee boo demee ba nga xam ne set nga dañ lay bàyyi léegi trois jours nga soog a sangu ma ne ko loolu musiba la di kebe naka la jigéen di sete ñu may ko encore trois jours mu soog a sangu set diggante bi boo fi deeyee musiba mën na la dal mën nga dem safara wala iyaadu billah parce que fi nga sete rek ngay sangoo waaw fi nga setee rek ngay sangoo set gi nag am na ñu wax ne xasatul bayda muy am na looy génnee yow ndaw si lu mel ni ñooy ko bu weex loole siiñ la ci ne léegi yow set nga waaw am ñoo xam ne dañu ni may nañ ndaw si mu wut morso wala coton comme yi xew ngeen baal ma mu nemmeeku ci boppam xool ndax set na wala setul su dundee coton bi mu takk deret mu xam ne kon setagul bu takkul nag mu xam ne set na mu sàmm boo demee ci xaliil muy jawaahirul ikliil daf lay wax ne nag ndaw si fu mu toll kebe war nay nemmeeku boppam ndax set na wala setul ndax mu setee rek immédiatement dafa war a gaaw dem sangu ji waaw amul set naa tey damay xaar ba suba wala gannaaw suba ma doog a sangu déedéet fi nga setee rek foofu ngay sangoo moo tax tey boo seteen boo setoon tey avant fajar boo demee ci xalil dafa lay wax ne kon ndaw si na nemmeeku boppam balaa tëdd ndax set na wala setul ndax bu demoon tey ba ay quatre heures du matin mu soog a nemmeeku na set na dafay fay tak euh, dafay fay timis day fay gée parce que ñoom ñaar mi ci seen waxtu daruuri lu am solo la fi mu tollu nii kebe ndaw si nga xamante ne nii laani nemmeeku na ni moom set na avant fajar avant ñuy salaat mu set fa kooka bu sangoo day fay timis day fay géewu démb gi parce que ci seen daruur yi la setete jeexagul parce que fajar jotagul salaatooguñu guñ waaw su fekkoonte ne ni encore dafa xëy suba mu nemmeeku na ni moom set na dégg nga vers trois heures et demie trois heures et demie nga nemmeeku yow ndaw si ne set nga su boobaa boo sangoo da ngay fay euh, nu mu tudd tisbaar ak tàkkusaan parce que ñoom ñaar ba léegi yaa ngi ci seen waxtu daruur yi ndax ñoom ñaar dem nañu ba jant bi so fala seen daruur yam waaw yii xam ko dafa am solo kebe dafa baax kon nag ñu naan la boo setee da ngay xaar trois jours après doo ko sangu musiba la de kooka moom dugal na la ci gaal goo xamante ne ni déparé na wala teere ji amul benn jigéen bu ñuy wax naan boo setee toogal trois jours après doog sangu déedéet fi nga setee rek fa ngay sangoo kon nag mutaada bi ki nga xam ne moom baaxoo naa gis réglam kooka dañ koy bàyyi aadatuha mu dépendre ci ay ci ay jours aadaam yim ko baaxoo gis bu ko dépassé nag lañ la wax ne may nañ ko trois jours mu yokk ko ca bu ca yokkee trois jours yi bu seteeg bu setul yépp dafay sangu te dem julli ji ñu ne waaw nan lay jullee ak deret ji fuqaha uy ne na wut morso wala mu mut coton def ci awraam pour deret ji bañ a sep génn ngeen baal ñu dañuy jàngale te jàngale dañ ko jàngale mu leer donte ñu ngi jéem a woddu kàddu gi mais ki ngay jàngal il faut mu comprendre mu am na ku ñu tuddee xaamil muy jigéen ji ëmb jigéen mën naa ëmb am trois mois gis règle su boobaa kooka may nañ ko mu dem ak moom 15 jours dégg nga ba 20 jours 15 jours ba 20 jours jigéen ji nga xam ni ëmb na am trois mois mën naa gis baax mu am moom 15 jours ba 20 jours bu fekkee am na 6 mois ëmb bi mën naa gis règle ba 30 jours maanaam weeru lëmm fa tabaarakallaahu ñu ngi siñaale signalé ni la ñu cërale woon ci waxtu wi jaan na kon yii lañ indi woon tey pour euh, seen émission yeete. muy jigéen ji soog a tàmbalee gis baax moom mën naa dem ak moom ba 15 jours mën naa arrêté avant quinze jours yi fu mu arrêté rek day sangu bu fekkente ne nag ki nga xam ni moom mu'taada la baaxoo na koo gis kooka dañ koy bàyyi mu dépendre ci aadaam bu ko dépassé may nañ ko trois jours bu 3 jours ya bu sa deg bu day sangu te julli xaamil muy ki ëmb man ëmb bi day dem ba am 3 mois mu gis règle su boobaa may nañ ko 15 jours ba 20 jours bu amee bu ëmb bi amee 6 mois juróom benn weer mën naa gis baax may nañ ko mu dem moom ba vingt jours ba trente jours moom ak euh, baaxam boobu moom ki ëmb ñu sant lépp gërëm ñëpp gërëm suñu camaraman Amadou Kébé gërëm waa régie Moussa Coulibaly Alassane ak suñu soppe yëpp fa tabarakallahu daayira mahabatu rasul mbaaw président Habib Bey ak euh, soxna Sukayna Fall Adja Ndoura suñu yaay soxna Hafsa ñoom ñëpp ñu sant leen gërëm leen waa HLM Grand euh, Dakar tabarakallahu Mouhamadou Bachir Diouf Euh, parcelle unité 26 unité 25 Serigne Mor Diop Thierno Youssoufa Sissoko incha allah kon xam naa daal dig daje euh, suba ak jàmm ci waxtu wi ki nekkoon ci waxtaane mooy seen mbokku daara oustaz Mor Diouf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك